بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه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 sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi ummatihi ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen ndokkeel ci jataay bu tedd bi eh, ñu teew fii ci kër cheikhul xadim eh, ànd ak cheikh mahamadul xabaan ibnu cheikh mahamadul fadal mi nga xamne ne la serigne bi denk lepp lu aji ci walu jangum alquran ak jangale ko fi ci dekk bi and ak euh, lajna tansiqiya ci jaisatu cheikh al xadim al alamiya li tahfiz al quran al karim al cheikh ahmad bamba al alamiya li tahfiz al quran al karim and euh, ak wa lajnatu tahkim ak bokk yi nga xamne yépp ñu ngi wo jangum alquran ak jangalé ko ñu dajé won tay ngir tolluwaay bu am solo moy xam ngeen ni nangami wër ci gannaaw ba légui ñi ngi yeglu doon wax ci solo jaay isa euh tansiqiya bi ànd ak waa lajnatul i'lam yaatal ko fu nek mbokk yi bindu yonne seni talab lajnatu tasjil jël ko jébbal ko al lajna al fanniya mu saxal ko ci banque de données ba tasjilat yi jeex lajnatu tasjil jébbal ko lajnatu tahkim euh, tansiqiya bi taxawulen ñu liggéey ci liggéey bu am solo fekk lajnatu tahkim jiital nañ liggéey bi ñu war a jiital mooy def istimaara juboo ci dawabit yi nga xam ne ci lañ war a liggéeyee te loolu yaakaar naa koo na ci yow gis nga ne istimaara bi yaatal na ba gën a yaatal yu baree bari muy liggéey bu am solo waaye yamu ca mu mel ne dajee nañ ceeg laj na kiim dajee na ci ci biiram euh, defal ci sax formation ñi nga xam ne ñoo ko war a ñoo ko war a def ba nga xam ne bi ñu agsee ci bis bi it ñu taxawal ay équipe équipe bu nekk ñetti nit am ku ko jiite ñu jébbal leen ay tas jilaat ñu déglu ko biñ koy déglu seetloo nañ ca ne lii day dana tax ñu jekk ko noo xam ne bu xale bi toogoon ci sa kanam sax xëy na doo ko mën di delloo gannaaw lu tol noonu ñoom ñu am temps bu doy ngir visionné ngir déglu ba kenn ku nekk jël note bi yàlla dogalee loolu ñu noppi ci tey jii at tansiqiya wala lajnatu tahkim eh, ci ron kilifteefuk Cheikh Mahamadul Xabaan ni ñu ko waxee woon dajeewaatoon fii ngir jot leen liggéey boobu ni mu tëdde euh, dañ ko tëraloon ci ñetti xaaj far boo xam ne dañ koy mën a tuddee xifs ma tayassar wala xifsu asrata ajisa mooy ñi nga xam ne jotuñoo mokkal alxuraan tañ te jaayisa bëgg leen a tas jiyan ngir ñu am cawarte ba gën a mën a yokk seen ngóora tax ñu def ko xifsu ma yasar ak beneen far boo xam ne mooy faru saani di xifsul kaamil ma tajwid ak faru bi nga xam ne mooy bu mujj bi xifsul kaamil ma tajwid wa tafsir benn bu ci nekk ñu wax ne buñ ca àggee déglu leen gannaaw boo xamee ne biñ dajalee vidéo yooyu yëpp demoon na ci téeméer ak benn fukk yu manqué tuuti am na sax yu ko xaw a ëpp waaye ay manqué manqué def cey am waaye kon liñ déglu muy 157 faana bu nekk ñu tànn ca fukk ak juróom yi ci jiitu tàmbalee ko ci faral ajisa muy xifsumaata yasar bi euh, biñ ci accès fukk ak juróom yi may bëgg a lim ñooy ñi nga xam ne ñoo ci jiitu seeni tafasil nag ku nekk daraja yañ ko jox loolu dinañ ko bind génnee ko publier ko dinañ ci defaat yeneen jataay yu gën a yaatu waaye tey jataay bi dafa xaw a yàgg kon fukk ak juróom yi ñu tàmbalee ci Abdoulahi Guèye mu bàyyi ko ci daare sëriñ alxaaji ñang ca Jurbel Mouhamad Guèye bàyyi ko ci Mahadul Basiriyati ca Ndar Fatimatu Fatimatu Jaxate bàyyi ci daara yi Serigne Thierno Mbaye ca Yaraax Iliman Iliman Dia bàyyi ci Mahadul Basiriyati ca Ndar Aliyun Badara Seen eh, bàyyi ci daara yi Abul Xaasim Asatibi eh, Ndar soxna Fatimata Njaay bàyyi ko ci Mambaul Ulum ci Touba Serigne Fallou njaay bàyyi ko ci mahadu farisil islam ci Ndar soxna Anta Silla bàyyi ko ci mu as mu asasatul Batuul ci Touba soxna Maymunatu Mbóoj bàyyi ko ci daarul muminaat ca Jaxaay Ahmadou Touré bàyyi ko ci mu jàmmax cheikh ma paate mbay ca jaxaay pape ibra jéey bàyyi ci euh, ci Saint-Louis rek lañ def indi wuñ turu daara waaye Saint-Louis la bàyyi ko euh, Rama Gay bàyyi ci euh, moom it daaray al ifriqiya ci Kaolack Abdoul Ahad Diallo Abdullahi Diallo bàyyi ci darul aramayni sarifayni ci ngor dakar Bayi ñas bayi ko ci mahadu mamakala sek ci kaolax cheikh ahmadou bamba dramé e bayi ko parcel aseni ci thiès kon ci faran bu jekk bi muy ifsumata yasar fukk ak girom yooyu ñoo ci jitu incha allahu taala seeni détail dinañu ko euh, joxe ci na mu gën a yaatale ku nekk lu am ci ay daraja fànn bi ci topp di xifs ma tajwid euh, ka jiitu di Ahmadou Lamine Fall ba tey jóge ci daaray Abul Xaasim Asaati bi ci Saint-Louis adama wuri jallo bayiko ci dara usman ibn affan ci kolda mahmoud gay bayiko koci ci madrasatu ahlul quran ci touba eh, nday sayna bu ngom bayiko ci dara cheikh mohammedul mustafa ci touba mam bu jaw ci darul maarif al islamiyya ci touba fatimata bintu jàllo bàyyi ko ci mahadu salaam ci pikin maam jaara faal bàyyi ko ci almahad al islamiye jaaratullahi mariama bu sa kon poroxaan maam abdallahi jaxate bàyyi ko ci mahad naylul maram tuuba mustafa jóob bàyyi ko ci mahad sayxul xadim tuuba Ibrahima Fall bàyyi ko ci madrasatu tawakkaltu alallaahi kër masar Masaar Mohamed Diop bàyyi ko ci mahadu bintu caw eh, kon mahad asayda bintu Thiaw ci cene ba Mouhamadou Habib Dia bàyyi daaray Omar ibn Abdul Aziz ca Risatol Mouhamad Sow bàyyi ko cene ba Saliou Ndiaye bàyyi ko Touba bàyyi Ahmadou Kebe bàyyi ko ci e, kon faran bu mujj bi bu ñu nee nag mooy dañ ko def ay kuréel muy ñi xam ne dañoo. mokal alquran tajwid ko tajwid bu rafet te mokal alquran lepp ñu beral leen ben kurel ñi mokal alquran diko tajwid tajwid bu rafet ta bolé ko diko tafsir ñu beral leen ben kurel ñi euh tañ di leen ci soññ bëgg ñomit ñu jaar ci yoon yu gëna gor gorlu ñu beral leen benen kurel kon nonu lañ ko tuddé ci ñetti faran yi bu dee bi nga xam ne moo jëm ci wàllu tafsir bi nga xam ne moom ci liñ ci seetlu mooy at yi dafa mel ne moo xaw a tënk ñu bari ba tax bari na lool ñu yëglu ñu yëglu bëggoon cee bind waaye liñ ko plafonné woon ci 30 ans moo tax ñu bari ñi nga xam ne bindu woon nañ te weesu ko mënuñ leen woon a jël ndax liñ ko bindoon moo tax lim biñ ci am nii la toll muy Mouhamadou basiir maanaam ci biñ xoolee ñi nga xam ne seenu bi leen laj na taxkiim xoolee ndax mu ñoom dañ leen di xool ci ni ñuy xool ñi ci ci ci ni ñuy xool ci tajwid lépp bàggal door leen a xool tafsir waaye bi ñu leen xoolee ñi nga xam ne gis nañ ne mën nañoo jàll nag mooy lim bii may bëgg a tudd Mouhamadou Bachir Sambo jóge ci Mahadu Farisil Islam ci Ndar Mouhamadou Moustapha Ndaw jóge ci markazu daarul arxam ci Kaolack Nafisatu Bousso di candidat libre ci Touba Ndamaatu Mouhamadou Moustapha Niang jóge ci madrasatu maam Abdoul Aziz ca Mbuur Cheikh Ibrahima Seck mu ci muassatul kon ñii ñooy ñi nga xam ne ñoo jota matal sart yi ñu déglu leen seenum njàng tegu ci yoon tañ bokk ci faron tafsir yi ma tajwid wala faron tajwid ma tafsir kon lii mooy résultat yi nga xam ne moo bàyyikoo ci liggéey bu rëy bi nga xam ne boobu ba léegi mbokk yaa ngi ciy ànd ñu ciy jaajëfal ñëpp di ci ñaanal tawféexi suñ borom képp ku ci yëngatu ak nu yëngatu ba mën a doon ndax amna ay techniciens yo xamne ne ñi ngi ci terrain bi di wajjal li amna ay goor yalla yo xamne ne ci seeni barap di yëngatu toy bañ ko déggee dañoo lamb seeni poste ne jaay satu Cheikhul Khadim kenn du len ci man ta mu yey lool am ño xamne ne it ñi ngi ci waar yu nekk ci seeni daara waye bañ ko déggee dañ ne lool yi dara jitu ko ci li ñi liggéeyal suñu borom ci alcorane joxe ci seen bop muy guddii muy beccëk waxtu li len woo ñu wuy ci kon mbollem ku ci yëngatu yalla nako yalla fay ngeen jiw eh, ci barkep serigne bi ci barkep alquran kon dal lolu moy resultat yi nga xane mo am insha allahu lepp lu ci wara top ci ay leral dinañu publier resultat yi ci kay xaral yep ba fu nit nek ñu fekk la fa li dess ci programme bi ci ñewit dinañ leen ko communiquer insha allahu jef kon ñu tewlu rek serigne mohammedul khaban moom it li ñu ak cantuk boppam la war a am ndax nii ngeen ko gisee ba mu ci xisee joxe ndigal su ne woon dox leen mu doy sëkk waaye ba muy tàmbali nii la defoon wamat mbooloo mi yóbbu ci sëriñ ba ànd koog mbooloo ba tey jii kon jataayu tey jii luñ ci wax firndeel na la weesu lépp yàlla na suñ boroom yàggal jataay bi lool seral ko guy te may leen ci ndam lii la sëriñ bi doyloo ba dénk la ko mbokk yi yéene la ko Eh, lo ci sentu ci nam yalla na suñu borom defal lu ko kawe te ñu ànd ko gën alhamdullilah amin amin amin amin آمين بجاي الملتقى حياتي رعاية القرآن ذي الآيات